aousubillah min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ni seetaan ci sunu site bi ñuy wax alxadimiya ñu ngi ñëw fii tey ci Daaru Salaam magul ko baaxoo def ci xew-xewu diine yi xam ngeen ne màggalu Daaru mi ngi ci sunu kanam ñu fas yéene ag àgg di ko ci ay waxtaan kan mooy jëmm ji nga xam ne moom defal gi ñu maam Anta ñuy ñaanal xalifa général de Mouride Serigne Mouhamadul Muntaxa sun borom yàggal ko fi lool te wéral ko di ñaanal sëriñ Mor Faati Mbàkke mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ borom daaru salaam di ñaan mu yàgg fi lool te wér di ñaanal baax sëriñ Jili Mbàkke moom sëriñ Modou Mamoun di ko ñaanal fan wu gudd wér moom mi xalifa bi ak sëriñ Abo waaye ñu ngi ne nag ci biir kër sëriñ Maam Mor Mbàkke Tuubaa Tuul di ko ñaanal yàlla sàmm ko te wéral ko ñu fas yéene fi amale jataay bi nag ci ndigalul doomam sëriñ Sidi Mbàkke mu warona sanni kaddu ay mu bolé nok rakam ji di serigne khadim ñu bëggona dik nak ci lu gatt gatt ay dénkaane yi nga xamne maam Cheikh Anta daf ko daan def di denk talibé yi waye di denk muy dénkaane yo xamne dana matalé ci julit yépp ku ci bëgg jariñu rek di nga ci mëna jariñu yoy nak lan bëgg jangat ngir xam maam Cheikh Anta lan la doon jariñ ak lan la doon jublu ngir nit ñi melni ni khadim ñu ngi lay siyaare bu baaxa baax di la jox kaddu nga nuyo ñu daal tambalé waxtaan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 te suñu kilifa mooy kilifa ñëpp di cheikh Mouhamadou muntaha ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di nuyu seen Mame Mor Mbacke sëriñ Mor fati di xalifa maam Cheikh Anta di ko ñaanal ak mboolem njaboot maam Cheikh Anta gépp di ñu kenn daal nuyu ñëpp rek ñu ko dalee sëriñ Abdoul Khadir di xalifa sëriñ Mouhamadou Mamoun nekk fii ci dëkk bi di ko ziar bu baax ak eh, waa kër sëriñ Abdou Khafoor yëpp di ko jiital ci di ci jiital si Cheikh Mouhamadou Mokhtar Mbacke ak si Mamadou Mbacke ñi nga xamante ni moo di jawriñam ak mboolem njaboot suñu boo xawal yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax di bu baax nag suñu saalihu di rafetlu jaraay bu baax a baax te it laaj boobu nga laaj am na solo lool xam naa ni tontu bi ci gën a gaaw rek yaakaar naa mënta weesu lenn ci ndénkaan yi maam Cheikh Anta yi nga xamante ni daan na ko defal njaboot gi ak. mbolam ñim mu won dal ci gatal mo xam talibé yi la wala ñëbooti boppam ngi ñëpp rek te ndénkaane bobu nak bi ci ëpp solo yaakaarna bari na lool way bi ci ëpp solo japp na ni moy lettre bi nga xamanteni siiw na lool te ci mom la bayiko ko lettre bo xamanteni yaakaarna kuko jangat euh ku ko euh, dina dina dina am so am dina dina am solo lool sax ci ci jamono bi ndax yitté won nak jamono bi yitté won nak lettre bi nak xamna ni buñu ko waxtu maye dina ko jang lépp ba pare luñ ci mën a jàngal rek ñu jàngal ko ci incha allah jëm ko ci xajal lettre bi nag moo nekk nii mooy li may bëgg a wax lépp ci lettre bi la bokk mu ngi ko tàmbalee ci asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fa innahu min a almuxtaari ila ahlihi umuman wa xusuusa salaamun tushayicuhu nasihatun fal mujibu iclaamukum bi anni ma amartukum wala amurukum bi taqwa allahi wa jalla wa taa'ati ma faradahu ka salaati wa sawmi li ramadaana wa iqtifaa'i sunnatihi wa iqtifaa'i sunnati nabiyihi nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam daal di nag wa man faala gayra hada aw xaalafa alfuruud aw sunnata faqad tabarratu minhu zaahiran wa baatinan fa in maata wa lam yatub falaa yaluumanna illaa nafsahu man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon leetar bi moo nekk nii bi nga ko bindee ba pare nag dafa tegaat ci suuf daan ni Euh, leetar bi maam Cheikh Anta moom moo ko bind daan nag def naa ko muy sama lay sama diggante ak yéen ak sama diggante suñ suñu borom kon loolu buñ ko jàngatee dinañ xam ni maam Cheikh Anta euh, bàyyil na ak njabootam sas wu rëy muy dénkaane yu am solo yoo xamante ni buñ ci tegoo euh, ëllëg duñ ko gis di rus loolu moom yaakaar naa ko lool te it gëm naa ko lool sax ndax leetar bi li mu làmboo leetar bi génnul alquran génnul sunna génnul yoonu mag ñi fi ñu jaaroon jëmale ko ci aw ñooñam ñëpp ba pare jaglelewaat jaglewaat ko aw ñooñam ci biir kon loolu day wane ni maanaam ndigal li muy digal aw ñooñam ñor na ko lool ndax arab bi dañuy wax naan alxasru buñ ko boolee ak tawkiit mooy takk mbir ba pare boole ko feddali ko loolu day wane ni yow miy wax ni li ngay wax yitte leen lool teyit ñor na la lool teyit maanaam loolu moo daal maam Cheikh Anta ndax buñ déggee mu ni maa amartukum wala amurukum mooy digaluma leen dara tey duma leen digal dara lu dul euh, ragal yàlla taqwallaa kon xam na ni ragal yàlla mooy mooy mooy lal bépp jëf ju baax tey jëf ju baax joo mën di gis te ragal yàlla jiitalu ko jiituwu ko daanaka mën naa ni solo si du bari moo tax mu jiital loolu ci ci ci leetar bi daani moom la moom rek la ñuy digal tey duñu digal leneen tamit lu dul loolu ragal yàlla nag dafa yaatu buñ koy jàng ci alxuraan ak sunna kon ragal yàlla booy xool suñ borom soññee na ci ay yoon ci biir hmm. alquran ci te loolu maanaam lu ñu teg suñ bët la loo xamante ne mënees na koo jàng te it wax na ci alquran daal ne walaqad wasayna allazina utul kitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqullaha hmm. loolu rek maanaam la ñuy dénk loolu la dénkoon tamit ñu ñuy jiitu te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dénkoon na ki ñuy wax Muaz ibn Jabal hmm. bi nga xamante ni yónni na ko mu jëm Yaman li mu ko wax mooy ittaqillaaha xaytu maa kunta ragal yàlla fépp foo mën nekk kon loolu day wane ragal yàlla am na solo lool te it bari na wax yu ci ñëw yoo xamante ni du neex a indi sax ci jataay bi ndax dafa bari loolu li koy firi rek mooy waxi Serigne Touba ji nga xamante ni dénkoon na ko genn jëmm ju baax joo xamante ni lenn ci leetar bi lay wax dani awwalu ma uusika bihi ayyuha al axu saalix taqwallah al azim waqtifaa sunnati nabiyihi alkarim daandi nag wa xaqiqatu taqwa ci biir lettre bi la ko wax mooy al wuqufu inda al amri wan nahi mooy lépp lu baax luñ la wax te muy digal nga def ko lépp lu bon luñ lay tere nga bàyyi ko te xam ne sa njëriñ nekku ca lettre bi nag des na loolu waaye lii rek laa ci indi ngir xaw a gàttal tuuti waaye lettre bi ëpp na lii kon loolu day wane loolu te it lettre bi bu ñu ko jàngatee dëgg géndul cadre labiré ndax kuy tiiw aw di leen wax def leen lu baax lii def moytu leen lu bon lii laabiri leen la ci jublu ngir ñu am lu baax kon eh, yàgg nañoo dégg xadis bi yonente bi wax naan ad diinu an nasiha mm-hmm. te maam Cheikh Anta ñu njaboote ci diine ku ne xam na ni laabiri na leen ndax leetar bi génn ko eh, eh, kon bu ñu jàngatee loolu soññ nañ ci jaamu yàlla tey it soññ nañu ci topp ndigali suñu borom yi mm-hmm. mooy taa mooy taatu mm-hmm. awamirillah te loolu mu indi ci benn benn niral benn misaal mm-hmm. daan ni lu mel ni fonk julli mm-hmm. nga xam da coo indi benn waaye koor mm-hmm. ak li nga xamante ni war na ab jullit rek ci moroom jullitam lépp mu daal di koy def ak li nga xamante ni war na ab jullit ci digganteem ak suñu borom ginnaaw loolu mu daal ni soññ ci topp ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni nit mënta àgg ci suñu borom te jaaroo ci moom loolu sëñ Tuubaa mi doon eh, Seexul Xadiim doy na ci doy na ci firnde eh, eh, ndax sëñ Tuubaa yàgg nañoo dégg ci ay bindam muy soññee ci topp suñ topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te it loolu suñu borom moo ko ci jiitu ndax gis nañ ko ci alxuraan mm-hmm. qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah te suñ cheikhul xadim day wax naan nit maanaam mu ngi wax ci mm-hmm. ak àgg ci suñ borom te jaaroo ci yonente bi sallallahu alayhi wa du àgg te loolu li koy firnde mooy bayit yi muy wax naan man talabal wusula lil jalili falyaatasim bi sunnati rasuli mm-hmm. maanaam topp ci sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa mooy tax nit ki nga xamante ni bëgg naa àgg ci suñ borom mm-hmm. ak àggam gaaw mm-hmm. eh, te suñ borom wax na ci alquran ni wa ma aataakum rasulu fa xuzuhu wa ma naheekum anhu fantahu lu leen yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indil na ngeen ko jël waaye lu mu leen tere na ba bu leen ko bu leen bu leen ci àgg mooy na ngeen ko moytu kon lii day wane ni topp yonent bi mooy jariñ mooy joxe njariñ li gëna a gaaw ci suñ borom bimu waxe lolou ba paré nak dani waman faala ghayra hadha ku def luddul li ma digalé daal di wuute ay ndigalam yi ak laabiram ah koku day manam leneen lum am bum ko bum ko bum na ko yedde bopam kon mom jël na responsabilité ci jabor gi waye jël na responsabilité gi nga xamanteni waron na ci digëndem ak ñimu yulif moo tax mu digale loolu kon li tax mu wax ni man waman faala xeyra haza kon lii day wane ni ndigal li muy digale moom ñor na ko loolu mm-hmm, mm-hmm. moo tax mu dikkaat mm-hmm. ndax ku ne xam ne nit moom boo digalee dara ba pare boo waxut safaan bi tamit ni tere naa leen nangam nit ñi buñ déggee ndigal rek war na nga cee dégg war nga war nañoo déggee ni yow lii kat tere nga leen ko kon li tax mu koy waxaat mooy ngir feddali loolu la te ku def lu dul lii dañ naa ci moom zaahiran wa baatinan maanaam seet naa ci moom wicc bokkuma ak moom dara cib gàttal rek képp koo xamante ni gis nañ ko muy def lu dul loolu deful ndigal yi suñu borom bi mooy tuut ay tereem kookat nañ jàpp ni kii li ko maam Cheikh Anta digaloon defu ko te it nañ jàpp ni maam Cheikh Anta seet na ci moom bicc rawatina bu fekkee day day bokk ci ñu njaboot maam Cheikh loolu cib gàttal mooy loolu mu daal di jeexale lettre bi nag mhm. ci ni ku jëf-jëf ju baax mhm. suñ boroom moo lay fay mhm. te it jëfam boppam la ko jëfal waaye ko jëf ab safaan tamit moom ci kawam rek lay dellu kon loolu day wane ni maanaam moom eh, soññi ne nit ñi bu baax ci ñuy defal ñu bari ay jaamu yàlla te it tey jëf-jëf ju baax ndax xam nañ jëf ju baax mooy jariñ àddina ak jariñ alaaxira kon leetar bi moo nekk noonu waaye li nga xamante ni moom la jàngat ci leetar bi am na juróom benn bokk na ci njuróo fi lettre bi hmm. mooy résultat yi nga xamante ni mën nañ ko jëlee ci lettre bi boobu bi ci njëkk hmm. mooy ak mbokkoo ak laabire al uxuwa wa nasiha hmm. maanaam ku liir lettre bi dina xam ne maam Cheikh ak mbokkoo doxal na ko bu baax ndax mbokkoo weesuwul ñi la suñ tubaab booleel ak sa njaboot ku ci nekk nga doxale ak ak ñoom la war ci sa diggante ak ñoom muy lan digal leen ak jaamu yàlla tere leen ak mooy suñ borom. Mm-hmm. teg leen ci yoon te moom def na ko. Mm-hmm. laabire gi tamit leer na nañ muy ndigal yim digale lim laabire nit ñi ci biir lettre bi. Mm-hmm. ak li nga xamante ni wax na leen ko ñu moytu ko. ñaareel bi mooy ashuur bil masuliya maanaam mu yëg ni responsabilité bi nga xamante ni jox nañ ko ko. mu yëg ko bu baax daal te di ko doxal. loolu li koy firndeel mooy ku ci nekk ci ci ak ak ñoñam. mu digal ko ci mu def te mu tere ko ci mu bàyyi te kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi ku ci nekk ci ñun sàmm la tey suñu borom dina laaj ku nekk na nga doon sàmmee ca ca ca ña ngi jiite te moom yaakaar naa buñ ko sàmmee buñ ko laajee day am naa yaakaar ni moom moom moom macha allah ndax digale na tere na tey tege na ci yoon ñetteel bi mooy al iltizaam wa shuuru diini maanaam yëg-yëgu diine bi nga xamante ni am na ko mm-hmm. dëgg-dëgg wane na ko ci biir lettre bi loolu mooy leetar bi boo xoolee ragal yàlla la ci wax ak mhm. topp suñu borom mhm. kon loolu ku la ku la xam na ni mhm. yëg-yëgu diine bu rëy mu ngi woon ci moom boo xamante ni wane na ko ci biir leetar bi juróom ñeenteel bi mooy at xaju manhaju manhaju xayaatin wa amal maanaam ragal yàlla bu ñu ko waxee maanaam mooy yoonu dund ak jëf maanaam jëf joo gis wala wala dund koo gis te nit ki jiitalu ci ragal yàlla kooku am naa yaakaar ni man na jëf de hmm. waye jëfam ji man na baña mel nam waro waroon mel manam ci ak ngeenel wala yoy ndax ragal yalla moy defar mbir mu nek hmm. tayit mom moom seetlu nañ ci mom bu baax moy eh, ak dundam lepp jaamu yalla la won ak top top gi nak li ci gëna a firndeel moy top gi ñu topon Cheikh Khadim hmm. defon ko muy leppam jital ko ci lepp diko deglu ci lepp tamit loolu nak man na loolu rek day firndel ni manam mom bu bindé lettre bi war na ko mëna bind ndax seigne touba ñimu yar Sëñ Tuubaa ñi àndoon ak moom mm-hmm. Sëñ Tuubaa ñi jamantoon ak moom kenn xamul ci moom loo xamante ni jikko la juñ mën a sikk mm-hmm. wala luñ mën a sikk rek ci moom mm-hmm. moo tax ku bàyyi koo ci moom tarbiyewu ci moom am eh, def dénkaane bu mel nii loolu du ñu jaaxal juróomeel bi mooy day wane ni bu baabu baabu tawbati maftuuxun daa iman buntub tuub tijji nañ ko ba faw mooy lim wax ni fa in maata walam yatub ci biir lettre bi mm-hmm. ku ko jàng dina ko xam mm-hmm. kon ku ku def yi muy tere ba mm-hmm. toppoo ay ndigalam ba faatu te tuuboo kon kii day wane ni nit balaa faatu kon mën naa tuub kon bunti tuub duñ ko tëj mukk te it loolu suñu borom wax na ko kon soññee na ci bu baax a baax juróom-benneel bi mooy bu mujj bi mooy al azmu wal xasmu maanaam dogg gi nga xamante ni am na ko ak takku gi nga xamante ni am na ko ci tongu képp koo xamante ni defut ay mooy faqat tabarra'tu minhu zahiran baatinan ci biir lettre bi képp koo xamante ni defut eh, lim digle wala lim tere mm. kooku seet na ci moom wicc mm. addi maanaam biir ak biti kon kii day wane ni dogu na ci loolu te it maanaam yoon woowu la tegu daal mm-hmm. mun ma yoon woowu la tegu ba pare dëggu ci lool sax mm-hmm. te it maanaam nit ñi bi nga xamee bu ñu xamee ci moom loolu rek yaakaar naa duñ am sax fitu mooy mooy mooy mbir moomu rawatina ñi nga xamante ñoo ko topp woon niñ ko niñ ko gëmee woon fonkoon ko lool sax mhm. daan ko déglu ci lépp kon buñ jàngatee lettre bi nii mhm. képp kuy njabootam rek war naa war naa mën a soññi boppam bu baax te góor góorgóorlu bu baax a baax a baax mhm. rawatina ñi ko jige wala ñiy woote woo ak aju ci moom ñëpp rek ku nekk war naa jàngat lettre bi wala topp fu ñuy jàngate lettre bi ngir mën cee jariñu bu baax a baax a baax lettre bi nag xëy na gàtt na ci ci ci ci tënk mhm. waaye buñ ko doon yaatal dina gën a yaatu lool sax mhm. lii nag ab pàcc la ci boo xam pàcc la ci li nga xamante ni moom lañ doon waajal ci màggal gi mhm. mooy daayira bi nga xamante ni ñooy sëti maam Cheikh Anta yi topp am mbindam ak di topp jaar-jaaram ngir di ko yeesal thème bi lañ jëloon ci màggal gi ngir jàngat ko bu baax a baax daayira bépp na jàpp nañ ci njaboot gi yëpp tamit jàpp nañ ci ku nekk jàpp na ci daanaka jërul tudd ay tur waaye ñëpp rek jàpp nañ ci ngir mu mën a jëm kanam te ngir mën a fësal maam Cheikh ci xam-xam mm-hmm. ndax maam Cheikh Anta yaakaar naa am-am bi yaatu woon na lool mm-hmm. waaye tamit xam-xam bi yaatu woon na lool ak jaamu yàlla gi mm-hmm. loolu nag jot nañu mu gën a fees te it allah dina dina gën a fees lool sax ndax bind na bàyyi fi te it defe na ay dénkaan yu bari bàyyi fi jëflante na ak nit te ñu seen njaboot ñu ngi fi te ku ci nekk mën nañu ne ci moom diggante bi nga xamanteni mam maam Cheikh ant amon na ak suñu borom jaamu yalla gi ak diggante bi nga xamanteni doon na ko ak nit ñi mu nekk jëflante bu rafet bo xamanteni ñu bari nañ seen bëtt kon lool la indi won doon ci barkelu rek gatt na lool waaye xeyna waxtu yu yaatu yu yax waxtu gatt yu moko waral waaye nak yaakaar naa buñ ko gëné jàngat rek dina yatu, yaatu tayit it mi gëna yaatu waaye dinañ ko gëné inshallah allah fi ak bisba tayit dina am forme PDF boo xamante ni dinañ ko génne tamit ngir ñi nga xamante ni ñëwuñ ci jotaay bi mm-hmm. ku ci nekk ñu man ko ko yónnee ngir mu man ko liir bu ko defee mbir mi gën a yaatu yaakaar naa loolu laa ci jàppoon incha allah mm-hmm. baarakallaahu jërëjëf sëñ Xaadim yaakaar naa leetar bi dañ ko déggee lépp rek moom dafa mel ni dafa dikk ci ponk yi lislaam yi mm-hmm. lislaam nag kenn ku nekk xam na ne li ci njëkk mooy wéetal suñu borom baati seede yi wax na tamit boo noppee ñu taxawal julli te loolu mooy li nga wax rek moas bi ko yonent bi di yóbbu dégg yóbbal fële yeman te ne ko boo demee na nga woote ci baatum ñu gëm yàlla bu noppee ñu taxawal julli loolu mel ni jàpp ne lettre bi xam naa ne war ngeen a taxaw ci minbar yi def ci xutba am lettre bi moom ab xutba la moom dafa mel ni <laughs> te jàpp naa ne loolu moom dara gënu koo itteel ba noppi tamit leetar bi bokk na ci yóbbal bi nga xam ne ñi màggal si war nañ ko yóbbaale ndax yu mel nii boo seetloo suñ Modou Moussa yu mel nii la ci daan def te loolu am solo wane nga ci tamit ci maam Cheikh wane na ci li nga wax nii wane na ci ne xam-xam da ko yàgg itteel itteel bokk na ci njëkk a yóbbu ay doomam ñu jàng bitim réew yaakaar naa ne ay suñ Moustapha Thiey toog ñeneen jàngi woon te boobu yaakaar naa ne dañuy wax ne bëggoon lu mel nii rek bëggoon bu ngeen diggee mën a xàll yoon wi mm-hmm. euh, benn bi ci des it wax na bu kenn suufeel sunna sunna kon lolé da ngay gis ne eh, daf ko fonkon lol ta maam Cheikh buñ koy jàngat daf melni ni ko nit ñi jàngate mooy jàmbaarug liggéey hmm. jàmbaarug liggéey waaye jàmbaarug liggéey go gep bu noppee wat ko ci jami yalla yi hmm. loolu nag mooy mo mo gën a nit ku ku mat deug deug deug hmm. xam nga man ngaa faggu alal way faggu alal ba man ko koo wat ci nit ñi delloo wat bu jëk bi moy delo ko ci Sëñ Tuubaa wa wax nan ne bimu ajé bimu ñëwé dafa wax yi mu battale won ak yi mu amoon yépp jeex na daanaka ginnaa defal na seigne touba bëggam gi amatu ci soxla ku ci am soxla nga dem top to, ko waaye mu amatu ci soxla man yaakaar naa leetar bi na nag xanaa ñu jox la nga taggo rek noko koy loy loy wax nit ñi nga ne euh, amuñu xam-xam comme man euh, lo leen di wax ñu yanu ko ci ba diwen ci yenn yi rek na ci na wa taqullaha wa te ya nga don wax ci seigne touba ni waxlam bi na annama tafawutul wara bil ilmi wa diini yakkoonu fasbira kon njëkkante gi foofu la nekk waaw waaw xanaa xanaa loolu ñi ci jeexal rek hmm. tey tey def benn soññee bu tuuti rek boo xamante ni dinaa ko jox hmm. sama sama ñi tolloog man hmm. muy ndaw ñi nga xamante ni toll nañ ci jàng te dara waru lu dul jàng ñu gën farlu ci njàng rek di xeeñtu jaar-jaar yi mag ñi nga xamanteni ni ñoo fi jaaroon mu nekk jaar yu rafet yoo xamanteni kenn ku ci ñun kenn ci ñun ku nekk bu ci jaaree man bu amul la mag ñi amoon tamit dina leen jige mhm. kon loolu yaakaar naa mm, Sëñ Tuubaa soñ soñ nañ ci ba ba mhm. mag ñi tamit soñ nañ ci ba tàyyi muy lan sàkku xam-xam ak buñ ko amee tey jëfe ko mhm. tey sax ci lu baax di jéem a dox ci lépp lu baax rek di ko wax ak anam gu man di doon rek ci lu baax ñu gën cee góorgóorlu bu baax a baax te it war maalante ku ñu mag ñu jox ko cër ku ñu gën a féete ndaw ñu yërëm ko tëgu tënku ci njàngalem Sëñ Tuubaa daal yaakaar naa gisuma lu ko gën a gaaw loolu moom laay laay jeexale di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñëpp rek ñu yàgg fi te ànd ko wér ba mm. lépp luñ bëgg a taxawal ci diina ji rek suñu borom kàttanan lañ ban moo ko bu baax ci barke Cheikhul Khadim di bu baax mm. masa allah jërëjëf ko te indil ñepp du day leetar bo xamanteni ni amatu nas wala waxuma amatu nas way julit yëpp ko man na leena fek fan nek ñu jot ko te danam ko soxla wo danam ko itte wo kon nak dafa melni magal gi eh, li la fi lañu fi indi te li nga ko waxe ni meñatum xam-xam moy ragal yalla ragal yalla te maam si dafa mel daf ko teunk ci leetar bi te on yalla keur gi mom ku ko xam muy keur mam si li nga koy xame mooy nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla jàpp seen jàmbur ñeme addiyee tamit ñeme addiyee wax de yàlla xam nga addiyee joom na nga ko joxe ay million ba noppi teg ci paketu almet ne kooku nag xam nu mu ko def kooku wax de yàlla doonut ku tayel doonut ku nayi tamit kon ñu ngi leen di sant bu baax di gërëm delluwaat di sant mbokk yi nga xam ne ñu ngi doon topp ñu ne amale woon jataay bi fii ci kër sëñ Maam Mor Mbacké ak sëñ sëñ Abdou Khafour ñoom ñëpp ñu ngi nii toog ak soxna Fatou Megere kon ñu ngi leen di joxaat daje fii ci màggalug Daaru Salaam di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu